Eh, the Gambia Market Union has accepted Gambian government appeal for appeal to exercise patience, but insists that if the government failed to fulfill their promise, the union will go ahead with the sit-down strike on the 21st of September. This agreement, sorry, this agreement came yesterday when the market union executive members convened a meeting at the Latakunda market in response to the government's press release calling on them to exercise patience the union, the union last week wrote a petition to the President Adam Barrow, urging him to allow the markets to operate from 7 a.m. to 5 p.m. or else they will, they, else they will stop until businesses, sorry, or else they will stop all businesses throughout the country. Ah. <laughs> market union we can accent seen drama léegi from there, nekk dafa mel nangul nañ government bi seen pledge bi waaye ñu ngi leen a wane suñ gisul dara bi balaa on the 21st hmm. they will go on their sit down strike on waxoon léegi on the 21st euh, ñu ne mbooloo mooy doole ci lu ñoo wax waaye dafa mel ni euh, ñii moom euh, ci ñu bëri ci ci ñu ñoo dégg ñuy wax dafa mel ni nguur gi daal xal na leen Euh, mun ci boor bi ci ci ci luñ bëggoon a def donte ne booloo nañ ba wax ne euh, bu nguur gi euh, deful luñ bëgg a dañoo dem waxoon nañ leen ba two o'clock ou three o'clock loolu romb wax leen ñu Wednesday ñu ne Wednesday may leen ñu Wednesday te lu ci dégg ci nguur gi ñu ne mata bi dañ ko rifaatu National Assembly léegi ñu ne fii ba twenty first waaye nag lu ci gën a am solo rek mooy nañ waxtaan ndax strike moom wala loolu moom génnul ci kenn du ci ñoom du ci réew mi du ci du ci nguur gi gitu. euh ndax eh, ko fi gis rek eh, buñ straqué ya, dina dina dina la laal ci ci lu do so eh, mon ñam mu ngi nonu te xamna né yow mom yang do wax ak gaay ya ci lu bari te dégg na tamit dafa melni amna sax ñeneen ñu bokk ci ñoom ñoom daanaka dañ xala dañ xala you know affaire bi daf leen naxari li tax jëluñ seen initial decision bi de go ahead with this strike lool rek mo lay mëna may ndam mm-hmm. waaye gis nañ ne njiit yi dañ dañ euh, bugg ñëw forcé tamit ñoom tamit bugg dañoo déglu kilifa yi amaana loolu la mu ngi noonu daal. Euh. gisuma si sax ku daanu ak ku wii nag ku lifi am na xereñ si feeñ na fa ak doxalini kilifa. si mm. ministre of interior. because wax dëgg yàlla kilifa la ministre of interior ndomba tànk bu réy la si biir réew mi. kool euh, ak mbootaay ñu ne ko ñun mënuñoo ñëw parce que amuñ sa paas yow bu yaa soxla mun nga ñëw. mu bay soxlaam yeb dawal motoom ñew ek ci black market bi xamna ne ku ko laaj sa musul faa ek togo ñu waxtam mu ñaan leen si ak tiranga xamna lolo indone miscommunication bi si union bi ñam fa fekk nak ñina ah ki kelifa la comme ko ñaan nañu foog ñu may ko that time it was very late pour ñu a information bi ne ñaan nañu ne mom si bopam mo jël decision ne liñ tek ni du yoon ndek yeen sax xamuñ na ne li ngeen di dund te ku xamono li nga leen dund du leen tek li waye bayaleen ko suma loxo ba ëllëg ngeen may ma ñaan naa leen si njëkk ak tiranga soo foog Amadou kilifa bu taxawoo ñaan loolu ay nit. foog ñu nangu ko das was di problème waaye lu problème bi mooy ne information bi du doon mun a jàll si ñëpp da la waram sob eh, membre si ñoom maire sax ba génn sax si ay IPJ waaye démba si seen meeting ñoom ni ñu ma nettalee daanaka déggoo nañ te wan nañ ne noo rek la mënoon a demee foog ñu nangul ministre bi loolu parce dafa wàccee boppam ñu fekk si la fa ñëw aussi nguur yaay jaay mi ñëwaat nekk fi intérieur ministre war nga xam nooy doxalee ak askan ba génne si eh, décision bu ñu naroon a jël waaye lii yëpp mu ngi wane ne réew mi ku ne dafa important ku ne da nga war a xam sa bopp ku ne da nga war a xam fi nga féetee si réew mi téye ko bu baax doxal ko te xam ne lii nga foog ne soo ko bàyyee mu yàqu nga téye ko mooy lii because market union mosu ñoo gis taxawaay bu mel ni ñu am ko tey nguur dégg na leen ba bëgg a yóbbu maata bu si